mbokk yi euh, tawxid wala wéetal yàlla ci boppam muy muy muy wàllu tawxid wala wàllu aqida bu ñëwee ñaari baat yi lan mooy aqida lan mooy tawxid boroom xam-xam yi bu ñuy wax aqida ni ma ko waxee woon ci bii passé dañuy wax ne mooy lu nit kiy fas ci biir xolam la muy fas mën naa baax comme mën naa bon waaye nit ki fas na loola ci làkku arab dañ koy tuddee aqida mooy maa yaataqiduhu l insan fi qalbihi sawan kaana xaqan aw batila moo nit ki di gëm ci biir xolam moo xam dëgg la moo xam neen la loolu la ñuy tuddee tawxiid loolu la ñuy tuddee aqida mooy fas-fas moo wax suñu borom di wax ci min charri nafasaati fi l oqad mu nag ma musal ci njabarkat yu jigéen ma ba ñuy njabar di ëf ca fas-fas ya di ko fas kon baatu aqida ca làkku arab loolu lay tekki bu fekkee nag ci charia borom xam indi nañ ay définition yu bëri waaye bi ci matale yaatu tudd ponk yi dugale lépp mooy hiya al gëm ne yàlla am na lu am yàllaa ko amal yàlla amoon na te dara ñëw fi bi fi dara nekkee day am bu fi dara nekkatul day continuer am lu am ci suñu coobare borom bi la amee moom borom bi subhaanahu wa taala lu lu lu lu neexul yàlla lu amul ci coobareem wala lu nekkul ci coobareem mënul am moom mënul am fii ci àdduna bi loolu ñu daata koy gëm gëm ne borom boobu mooy ki ñu sàkk moom lañ war a jaamu dañ ko war a wéetal dañ koo war a ci ay turam wéetal ko ci ay melokaanam wéetal ko ci nguuram wéetal ko ci ay jëfam gëm ni suñu borom sàkk na ay mbindaafoon yu nekk ci wetam mu leen di sant ay mission ñu koy taxawe leen dooy al malaika mooy al imaanu bil malaika gëm malaika yooyu malaika yooyu dañoo bëri kenn xamul nu ñu toll ku dul yàlla wa maa yaalamu junuda rabbika illa hu kenn xamul nu ñu toll ku dul borom bi subhanahu wa taala borom bi ne yonent bi alayhi salaam wax na ci xaalis bi wér mu ne am na benn kër bu ne ci kaw asamaan ñu koy wax al baytul maamur bi ñëw ci suratul qamar mu ne bés bu nekk soixante-dix mille malaaka sabuuna alf malak soixante-dix mille malaaka dinañ fa dugg malaaka bu dugg benn yoon nga fay dugg dootoo dugg ba yowmal xiyaam te bés bu nekk soixante-dix mille malaaka dinañ fa dugg yonent bi alayhi bi mu waxee loolu bu pare dafa jàng aaya ba mu ne wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu kenn xamul armée borom bi nu mu toll ku dul moom yàlla xoolal bi yàlla sàkkee àdduna ba léegi chaque jour soixante dix mille malaaka yi dugg ci néeg boobu nga xam ne mooy baytul maamour dañ koy wër di ko tawaaf comme ñun ni ñuy tawaafee kaaba gi yenn riwaayaat yi ak yenn borom xam ne saxal ni baytul maamour boobu dafa tiim kaaba gi kaaba gi moo ne ci suuf moom mu ne ci kaw jaamu yàlla yi ci suuf di tawaaf kaaba gi di ko war malaayka yi ne ci kaw di tawaaf baytul maamour di ko wër di fa dugg di sàbbaxal borom bi di ko màggal di ko kañ ah loolu lañ fay def te bu nekk benn yoon nga fay def benn yoon nga fay jaar dootoo fa jaar ba ilaa yawmi diin kon malaayka yi nuñ toll kenn xam ko bëri nañ lool am na ñu ci xam ka gën ci malaayka yi nekk seen njiit nekk seen chef gën a jege borom bi subhanahu nekk intermédiaire diggante borom bi ak jaam yi rawatina yonent yi mooy jibril alayhi salaam jibril moomu moom la yàlla doon yónni ci yonent yi muy indi wax moom la yàlla doon yónni ci yonent yi muy indi wax yi moo jël si woon yonent bi alayhi salaatu salaam màkk yóbbu ko euh, ci Jérusalem jóge Jérusalem ànd ak moom dem ci kaw asamaan borom bi jox ko fa julli kooku mooy jibril alayhi salaam mooy ki gën ci malaayka yi borom xam-xam yi dëppoo ci am na Israil am na malakul mawt malakul mawt am na ci riwaay yu ko tuddee Asrafil mais riwaay boobu tuddee ko Asrafil nekk riwaay bu wér borom xam xadis yëpp dëppoo nañ ni xadis boobu Maodo daa doon xadis boo xam ne bu wér la. am na Nakir ak Munkar am na Raqib ak Atid malaayka yi kon ñu bëri lañ am na Annaziaati bi ñëw si Annaziaati garqan am na Annashitaati am na ñaari malaayka yu di booleeg jaam bi nekk. buñ xëyee ñëw bu tàkkusaane ñu dellu daal di wax jaam bi lu mu fi nekkee woon ki féete ndeyjoor di bind lu baax lu mu def ki féete càmmooñ di bind lu bon lu jaam bi def ki féete ndeyjoor su jaam bi defee lu baax day bind ki féete càmmooñ su jaam bi defee lu bon day xaar bu tuubul mu bind bu tuubee mu dindi kon loolu mooy li nga xam ne moom mooy yonente bi alayhi wax ne yataaqabuuna fiikum malaikatum bil leyli wa malaikatum bin nahaar nee na dafa dafay remplaçante dafay wuutalante ci yéen ay malaika yoo xam dañu ñëw guddi gi dem ñu ñëw suba gi dem ku nekk bu demee yóbbu dossier yi ren borom bi subhanahu compte te yàlla moo leen a xam li xew xadis bi wa huwa aalamu bihim noonu la ko yonente bi alayhi salatu wasalaam tëjee mbokk bokk na ci mooy gëm téere yi suñu borom wàcce woon na fi ay téere jiitu téere yi bokk na ci tawra bi yàlla wàcce woon ci Muusa injil bi mu wàcce woon Isa zabour bi mu wàccee woon ci daawud suxafi ibrahim bi mu joxoon ibrahim ak suxafi moussa ak alquranul karim bi nga xam ne moo gën ci téere yi moo leen folli mooy bi des mooy bi gën a mat mooy bi gën a barkeel mooy bi gën a tedd mooy bi leen bi nga xam ne moom moo leen teeg yóbbaale la baax la de woon ca téere yi la yëpp mi ngi ci biir alquranul karim beneen téere bi ñëw ginnaaw alquranul karim téere boobu nga xam ni jàng ko jaamu yàlla la boo ci jàng am nga fukki tuyaaba boo xam ni sopp nañ ca jaadu na ka koy laal ànd ak laab ànd ak cet balaa mu koy jàng su koy jàng it mu yëg ne jàng jaamu yàlla la jàng gi dafay ànd ak barke waaye ki koy jàng it alquran ci boppam na yëg ne li muy def ibada la jaamu yàlla la waaye ñaan mi ngi ci ay biir alquran ay ñaan ay léemaay ay muslaay mi ngi ci biir